loolu Petit xaw naa yeex yéex na de yow da xamul booy étudiants yi hmm. booy étudiants yi ñoo mën a xaarloo nit bu ñu xamee ne yaa ngi leen di xaar da ngay xaar gis nga booy bu ku ci nekk président moo xam naa réew mi lay xaar ndax booy yi ñoo bëgg doseeg sarmeeg wengalu te leonaguñ tus nga mi ngi bëgg a yàgg waaye nag waaye nag koñ bi moom rek a fi jàng de <laughs> yeneen booy ci cag-cag yi rek lañ toog muy ciak ciagi rek lolou mom ci xawa jaar boy booy yi balaa ngaa egg sem 1 wala nga egg sem 2 sem 3 bala nga egg sem 4 sax bay nga xam nga ne lolou man man man man man lettre bi sax man yow boy xol compliqué wul ya ngi di compliqué wul hmm waaw compliqué wul mom ndax liñ bëgg wax mom lu simple la wax kon est ce que man mënu ma ko bind nga fokk ah warna ko man bind saay président nak bokoy bind mom waro ci def amul feud de frappe ni fa de de de box. Eh. mom affaire dafa wara jaar yoon. ci benn mais xaar bi mi ngi bëgg yàgg kay. wa mais xëy na ana fooy bi ana foy bi rek yow xëy na mu ñew foy bi fooy bi fooy bi joxuma la ah foy bi yoruma foy bi man big bi la yor. ya yor foy bi. fooy bi la yor. fooy bi joxuma la man tay bu dee bind pour président rek nañ ko jëm fooy bi joxuma la ko ba ci Njaay du ñew ah, wa waaw indi rek yow. ba xooñ nga fooy bi trop yow tamit. waaye loolu di da après ñu passé ko. wuy ma ah bindal lu jub de. waaye defal ndànk rek yow bu dee bind rek kay ñun mën nañ ko. Ah. chers compatriotes chers compatriotes. Mhm. Euh, salut salut salut waaw salut. déedéet déedéet déedéet. dafa nank salut déedéet ndax président ngay bind. salut tous mes condoléances ba pare. condoléances mooy jaale di wuy ma taxawal saa yow njaaxum nga fi bind. yow nga nar bind luñ ñu tëjee te sax wax ji sax léegi xam nga lan la. Euh, buñ bind buñ déglu ma rek. waaw Mbour waaw buñ bind président nañ ko bind ministre de de de l' agriculture moo yor wàllu xar yi. nañ ko ko président mooy seen njiit. nan nga mën a bindee lettre te defoo ses compatriotes. bind ko ministre xam nga xam ministre de l'Agriculture. agriculture lay dem. waaw bindal fii seer salaamaaleykum non astafurlah salaamaaleykum Faran kii kii la Indo wala bindal bonjour papa. de ministre de l'Agriculture. Mhm. comment va les papas. Mhm. comment va les mamans. Mhm. comment va les enfants. comment va même comment va le bon. Hmm? mindaan bi waaw après nag.

gu nday koku mo yor walu walu walu walu kii bi walu walu wàllu policier yi la wa duñ mom nañ war a bind ba paré nang ah marché la woru ta lu nekk ngi kan, si. wax nga dañu fekk fi mooy kan bañ ko nuyo bo xamne ñun nuyu nañ ko. wa wa lolu xalaat ba alim gu nday xalaat c'est mauvaise mhm. idée bindal mauvaise idée bindal lolu baax wa legi ay da Ndiongo mom nañ ko siy duggal ay da bàyyi bayina ay da ñong da bay bayina wax nga eh? dëgg. na ñoo ngi bàyyi bu yàgg. bàyyi na bàyyi na waaye dugalal keneen ci diggante bi. léegi ministre ban xoolal rek waaw yow kay yaay maa ngi bind kay yaay wax waxal rek. yow wax koo wax baax na. si solo nag. day saaga sa nday de. ah si solo sañ na ma saaga. waalekum waaleykum eh, salaam. eh Boy Ndiaye Ndiaye. waaye yow Boy Ndiaye yow xanaa xamoon ni yow la ñuy xaar fii. waay yow kay xam nga ni yow tamit nag xaar bi yàgg na lool yow noonu la ñu xaar fii. waaw mais nañ leen dem si biir. Eh, déedéet déedéet Boy Ndiaye. yow tànn dañoo yàkkamti kaay kaay ba jaay kaay kaay <laughs> ñun daal amuñu toogaay. Mm-hmm. lii wax ji tey wax ji mooy. téyel nii. lii daal leetar lañ bëgg a bind. leetar leetar. leetar bi nag. une une association des parents non avoir de mouton. non tabaski. Hein? à la tabaski Madame tabaski du am. <laughs> père kan kan attends lettre bi. man dafa baax gis ko dara fi baaxul. non qui moko bind. <laughs> ah. ko bind. non dama ki la. lu mu non ya ko bind ya ko kon bu nga ni ay ay ay ay.

amu leen xaru tabaski waaw amuñ xaru tabaski léegi ngeen bëgg a bind lettre pour ñaan xaru tabaski déedéet bati yow tam ñu defal ndànk xaru tabaski ñun ñaanuñu luy loolu dama ne duñu koy ñaan tabaski moo dul am dañoo bëgg tabaski bañ am non te déclaré nañ ko ba pare dañoo dem di mars uh, benn boy bu réew waaw boy njaago bu réew jàpp kii dóor ko ba muy bëgg a dee jàpp la la yow loo jàpp dóor ko ba sonal ko. dóor na kii dóor yu métti. yooyu xaw na ko rey. loolu moo ñu metti nag. Ah, surtout man d'accord. waru ko gis di ko dóor sama waay la. Ah. dóor na ko dóor yu métti léegi kan ngeen di bind lettre bi. waaw lettre bi ministre de de l'agriculture da ciy bokk. Hmm. moo yor xar yi. Hmm. ministre de l'extérieur. waaw dem beeg dikk bi. Hmm? mooy maanaam ñi bu ñuy si waree circuler ak yooyu. waaw kooku soxla nañ ko. ministre de de de des parents d'élèves. parents d'élèves. mooy maanaam ministre bi nga xam ne moo yor. léegi nag yi des na des na.

lu mu ñu may gis nañ ko ceeb yi ñëw na dawlin yi ñëw na ñun as gor na ñun duñu delluwaat foofu di ko ñaanat xar mais loolu seen seen droit la ah tabaski oh boy petit boy doo ñu bindal suñu leetar bi bindal nu suñu leetar ngir yàlla waaw kay bu nekkee président président bu compliqué ngay doon ah bul fàtte Aliou Ngoune Ndiaye bi ah. bu ko fàtte moom eh góor gi nag waxuñu fi ay wax Aly Ngouille Ndiaye ah, eh, si la si ndax. boo si loolu nan nan génnee si affaire bi si loolu nan wax ni day moom na génn. Aly Ngouille solo moom na génn. Aly Ngouille eh, bu ko bind bu ko bind day saaga sa ndey. ndayu kan yéen ñëpp. ñëpp day saaga day saaga. Cissé Lo effacé gisoo ñu bàyyi ko si pour pour kii bi njaago bi. bu ko dóori déedéet bàyyi rek. waxal sa numéro bi yow. 77 waaw 707. 707 set set set set set set doo wàññi set yi set noonu non la numéro non moom borom juróom ñaar 707 set set set set set 7 noonu la yàlla nañ leen numéro boobu léegi kan mooy signé si yéen ya. moo joxe numéro mooy kan moo kan eh, signé maa ko gën a jàng yéen ma signé maa ko gën a jàng signé non fii fii fii fan foofu si si set bi ci suuf fii waaw kay moo ngoog cop léegi à bon entendeur salut ma ne wasalaam nañ ñaanlante jàmm ak salaam seen lettre a ngi ni sa bëgg a ngi ni jërë ngeen jëf booy jërëjëf merci baax nga ah, jërë ngeen nuyoo bi wala si yaa ngi ci ñaanooñu <laughs> kon baax su mën a xew rek lu su mën si xew booy di nga ko dégg jërëjëf waaw jërëjëf booy jërëjëf eh, ma jox la sama cooñ nga war ma jox sa cooñ ngay téye sama cooñ waaw yow yow yow jërëjëf waay. waaw waaw non yéen yéen a jóg sama buntu kaa la ngeen fekk. waaw booy demal tamit. Ah, dana am doo soxla wax na dëgg bu nga tooñ. nañ dem waaw booy jërëjëf. yow jërëjëf yow daal xam naa ne bis boo nekkee président moom. réew mi moom du ma ko bokk. yow su boobaa kon di ngeen am xaru tabaski. Gambie gee laay dem toog fa. non dama leen di jox ay xaru tabaski. booy da ngaa compliqué de yow. dama leen di jox ay xaru tabaski mooy sa problème.